ba ñu ca tegee ab diir yeesu feeñuwaat na ay taalibeem ca tefesu dex ga ñuy wax tiberiyaad nii la deme woon taalibe yeesu yi àndoon nañu simon piyeer tomaa ki turam di tekki seex bi nataneyel mi dëkk kanaa ca diiwaanu galile doomi sebede ak yeneen ñaari taalibe simon piyeer ne leen maa ngi nappi ñu ne ko nu nit dañuy ànd ak yow ñu dugg gaal daldi dem waaye guddi googu jàppuñu dara ca fajar gi yeesu taxaw ca tefes ga waaye taalibe yi xàmmewuñu ko yeesu ne leen nag mbokk yi xanaa jàppu leen jën ñu ne ko déedéet mu ne leen sànni leen mbaal mi ca ndejooru gaal gi bu ko defee ngeen jàpp ñu sànni fa mbaal ma mu fees ak jën ba mënuñu ko woon a génne ndox mi taalibe ba yeesu bëggoon ne piyeer borom bi la bi simoŋ piyeer déggee loolu dafa woddoo mbubbam ndaxte dafa summeeku woon daldi sóobu ci dex gi yeneen taalibe ya xëcc mbaal mi fees dell ak jën jëme ko ca tefes ga ndaxte gaal go soriwul woon diggante bi waroon naa tolloog téeméeri meetar bi ñu teeree ñu gis ab taal ñu ciy lakk ay jën teg mburu ca wet ga yeesu ne leen indi ci jën yi ngeen jàpp simon piyeer yéeg ca gaal ga daldi xëcc mbaal ma ca tefes ga mu fees dell ak jën yu mag matoon na téeméeri jën ak juróom fukk ak ñett te li muy bari bari lépp taxul mbaal ma dog yeesu ne leen ñëw leen ndekki kenn ci taalibe yi ñemewu koo laaj ki mu doon ndaxte xam nañu ne boroom bi la yéesu jigéen ci jël mburu mi jox leen jox leen it jën bi yeesu dekkee ba tey bi mooy ñetteelu yoon bi mu feeñoo ay taalibeem bi ñu ndekkee ba noppi yeesu ne simon piyeer simon doomu yowaana ndax gën nga ma bëgg ni ma ñiy bëggee mu tontu ko ne axa kay borom bi xam nga ni bëgg naa la yeesu ne ko toppatool ma sama mbote yi noonu mu waxaat ko ne Simon doomu Yowaana ndax bëgg nga ma mu ne ko axa kay borom bi xam nga ni bëgg naa la yeesu ne ko sàmmal ma sama xar yi mu neeti ko ñetteel bi yoon Simon doomu Yowaana bëgg nga maam Pierre am naqar ci li mu ko laaj ñetti yoon ndax bëgg nga ma mu tontu ko ne borom bi xam nga lépp xam nga ni bëgg naa la yéesu ne ko toppatool ma sama xar yi ci dëgg-dëgg piyeer maa ngi la koy wax bi nga dee ndaw yaa doon takk sa giño di dem fu la neex waaye boo màggatee dinga tàllal say loxo keneen takkal la sa giño yóbbu la foo bëggul ci baat yooyu la yéesu doon misaale nan la piyeer war faatoo ngir jolli ndamu yàlla noonu yéesu ne ko toppal ci man piyeer gestu gis taalibe bi yeesu bëggoon di ñëw ci seen ginnaaw taalibe boobu mooy ki sonu woon ca yeesu ba ñuy lekk te laajoon ko ne borom bi kan moo lay wori piyeer gis ko daldi ne yéesu kii nag borom bi nu muy mujje yéesu ne ko su ma neexoon mu dund ba ma dellusi lu ciy sa yoon yow toppal ci man noonu am ci mbokki taalibe yi ñu xalaat ne taalibe boobu du dee moo ne yeesu musul ne piyeer du dee waaye li mu wax mooy su ma neexoon mu dund ba ma dellusi lu ci sa yoon taalibe boobu mooy seede mbir yooyu bind leen te xam nañu ne li muy wax dëgg la yéesu def na yeneen jëf yu bari suñu ko doon nettali bind lépp xalaat naa ni téere yi duñu xej àddina